ay ca mangook ñu dem yëgle kaay ngoog jamono ji askanu Sénégal tiit nañ de tiitaange am na de ak mbas mile nga xamante ni mi ngi ñuy bëgg a yóbbu jaxanama Le Soleil yéen a kaay xëy biral ne de kaa nga yokk de augmentation des cas mi ngi gën di law ci fii ci xëbu Sénégal Vox Populi ne de loo ci mën di dégg mooy jàppal ne jamono ji Abdoulaye Diouf Sarr yëkkati nay kàddu moo tax de ministre de la santé wax na de moom Abdoulaye Diouf Sarr tontu na bu baax a baax jëm ci nag wàllum dérogation sur les mesures restrictives nee na dinañ tiit am nag lu doy waar ci réew bu Sénégal mbas mi lee nii ñu koy sàggane fam ñu jëmee xamuñ ko dañuy nekk fii di toog di sàggan rek waaye nañu toog di xool ñu xam ndax nous risquons une situation dommageable mooy xam de waxuma ak artiste yi de te it yéen tàggatkat yi ne ko dana ma ma ne de ak catégorie bu mën doon ma ne li may wax mooy principe ak orientation te jamono ji bu ñu moytuwul nag naan dañuy wut koom-koom ee koom-koom ee fañ jëmee nag mooy musiba naaru laay ñu yóbbeen fala bu yi nag mën a sàmmonteeg ma leen ndénkaane waa Kër Docteur te tax it dina gën a tardé mesures restrictives contre la propagation de la Covid-19 ça va se moom mbir yaa ngi bëgg a doy lii cas de waaye beneen cas keyeng ci le quotidien yéen i ni Aliou Sané wax na de nee na troisième moo gën a nekk mbas fuufu Sénégal nañu bàyyi wax ji nag mbas mi ñuy ŋawti ŋawtee yenoo ko gàdd fu ne ñu dëg maleeg moom mën ñetteelu mandat bi nii di raam la ñu war a wax nag loolu mooy ka du samay kàddu Alioune ji waa yaanaama nee na nag na xam ne nag moo xam ak lu mu nas lu muy nocc lu ne waaye ci kaw yi néew lay jaar déet waaye Sane ma ne ci kaw yi néew lay jaar ci 24 heures chrono muy dëggal kàddu ne samay wax la maa koy waxaat baamtuwaat ko ma ne ma ne yaanaamaar maay dànkaa fu njiitu réewum président Macky Sall nag lu ko xelam may ba mu ne day ma ne si Macky Sall il devra passer sous nos cadavres bu dëgër a seenub mandat ci kaw yi néew la day jaar de moom Macky Sall moom président Macky Sall ak dialogue bi mu tegan su su aane dialogue ba de dialogue ba de fa mujjee xaw ma dialogue la xaw ma ji dialogue bi nga xamante ñu ngi ko dénkoon Famara Ibrahima Sagna ma ne moom mii dafa mel ne ku jàppoon buum ak bumbi ci comité de pilotage du dialogue national bii ñu moom Famara Ibrahima Sagna ñam doon liggéeyal di collaborateur mi mer nañ ba futti mi ne seen sëy boobee de tas la gën a jege ñoom nag la leen metti mooy ñàkk xam dëgg-dëgg budget bi nga xam moom la ñuy liggéey ak moom tey loolu yoon la ñu xam ko budget ba xamuñ ca lenn de te comité de pilotage bi dafa xëy benn bés rek ne kott na jot day day dem def ab tournée nationale ñu ne déet du sa daal loolu mënul nekk loolu dañ koy waajal da ca gën a yéeme moom Fama Ibrahima Sagna bi nga xamante ni ab reporter bu susu a woo ko téléphone lam ko wax lii la ko tontu yow da nga maa xam bu ma sonoo waaye lu may woo l'observateur na keneen mu wuutu ko fa mooy ki nga xam moo di général ñaa ndax moom mi daa mujjee nekk laa lax ab cas grave ci ma ne de Macky Sall loolu lay yódde Sagna wuutale ko ak Famara Ibrahima mii nga xamante daanaka lañ koy ŋaññi ci dialogue bi bëri na lool ci ay àndandoor waaye Macky Sall moom moomee de am na ñoo xamante xaw àndandoom lañ xaw ma waaye ñu ngi koy tuddee tur de laas yéene kaay ne de gi ji loon ab dëkk la de mu ne de maire ba di Sada Ndiaye laaj leen ma lu mu def wala lan la def ñeent ci quartier la taxawal yoo xamante ni mu ko tuddee président Macky Sall ah lan président Macky Sall ma ne président Macky Sall un ba quatre maanaam Macky un lañ xam waaye bu dee fii liñ bëgg su premier fii ci Ndakaaru de tribune yéen grand sëriñ bu Dakar wax na de ci suppression des villes yooyu moom sëñ bu Diop Ablaye Makhtar laa la wax moom mii ma nga jël laa la wax ab correction bu tar jox ko Macky ne nañ corrigé nag ma ngay corrigé Macky de interpellé ko laa la wax ci nag lii nga xam te moom la nar a nas ci pexe nag ndax taxi dafa leeral lépp ma ne day loolee sax mooy dëgg dëppoo taxi bañ fay nekk di a jubba ma ne suppression des villes fii waa ONG 3D <laughs> ànduñ ci tey ànduñ ci ëllëg moom laa la wax mu Njaay Cissé nee na lu mu leen jaral jaral na leen ko amul dara luñ ci ànd de ma ne ñii liñ nas du fi nocceekoo laa la wax li ñu bëgg du am nee nañ daañu sax taxawal ab mouvement bu mag bu rëy boo xamante ni nag ngir ville yi day des laa la wax un grand mouvement pour le maintien des villes waaye de li ñu war a saafara mi ngi ci lànk yéen kay de mooy nag lii ñuy wax ay gazet yoo xamante ni dafa am alcool ñu koy jaay xale war nañ cee gaaw jug de lànket ne ab lañ ci war a ubbi laa la ko mu leer naa campagne ndax nag fayitu système bi dëgg la nag nan ngay amee direction du commerce am yooyu yëpp mbir yi di mën a jaar fii fu ko neex mën a jaar di lëmbee réew mi loolu mënul nekk àlla jien ngay wax de bu ina koy yeesal ne nag état bi war na cee gaaw jug nu mu gën a gaawee xanaa rek di wax waajuri de yobu di xool xale yi de bu dee jënd nga foofu kaate yëgoo ko xale bu ciy nelaw nelaw yàgg yéen ba nga këpp këppal ko ndax cachet yii ma gis de la ca ne dina waar de beer sax la gën a jege de ma ngoog maa ngaa yem foofu aljuma mubarak ñu yendoog jàmm barak